salaamaaleykum euh, mbokki Bambey maa ngi nuyu ku si nekk ci turam ak santam di jiital nuyoo xalifu général kulli murit suñu wasila suñu muntaxaa basiru xaadimu rasuul di jël su nuyoo teg ko ci loxoy imaam ratib bu Bambey ak seen Cheikh Tedd Mbàkke mu teg ko ci loxoy kilifa diine gépp ak Bambey di nuyu kilifa aada yi di nuyu population bi gépp

na nga fonk sa baay balaa ngay tal jënd Louis Vuitton sax xool sa baay lekk na wala naan li may wax aussi sama mbiru yi di ko wax xale yu jigéen ñi chaque at loolu laa ngi wax ku siy jàng école say kaye na doon say àndandoo ku si am métier. seen metti na loolu sa doo waaye bu yaay wooyee nga bañ bu papa wooyee nga bañ di jigéen doo fóotal sa yaay doo taxawu sa yaay doo toggal sa yaay ah loolu de booy woote ni alaaj nga àndal yaa jàpp alaaj waaye alaaj jàpp la boo dee góor sa baay lépp lu mu la dox boo amee moyen dox ko dox ko waaye am papa mu nekk mag en cent

dañoo baaxoo teraanga dañoo baaxoo maslaa waxtaan diisoo waaye di enregistré ay nit di filmer ay nit di xawi sutura ay nit téye sa téléphone daal bu dix mille di kacc kacc kacc kacc rek loolu Sénégal valeur yooyu mus valeur yi kiis de valeur yi mus fay am ñu ngi woo ndaw yi surtout ndaw Bambey yi ñoom de góor góorgóorlu ba bu ñu bokk ci yooyu ndax ñu dañu am ay référence biir Bambey ay kilifa diine ak ay kilifa aada bi Bambey loolu dañ koy sant yàlla bu baax parce que kiis de valeur boobu ñu dëgg ci yeneen dëkk yi Sénégal Bambey bokk si mosoo dégg Bambey ci ci ci euh, yàqante ci internet ak karab-karab

wax deug ci yàlla te su ma soxla ku su nekk dina jóg ta campagne bi lu ma si gën marqué moy xadra bi ñi and ak man ku si nekk da nga jël sa auto indi et que sa tranga gëna sa mbolo la ñu mu dërëm parce que sama xarit dañ ko mag sa jël na leen ko lancer aussi un message fort ci élection législative yi ñu jëm la TV législatives, élection de destin pour notre coalition élection yi damay woo ndaw yi ñu bouclier du président de la république nous avons a sensibiliser les 12 communes du département de Bambé. en cas de manier. paa yi maire ñëpp la mu voté ji jigéen ñi ñëpp jóg ba ci ngoon élection législative yi incha allah rabbi mën a am ndam lu kawe ci turu benn bokk yaakaar ay la yowee nekk élection législative yi passe ñoo ko gañe élection locale yi passe ñoo gañe département bi waaye nag dañuy gën a laxasaay rek gën a laxasaay rek ba élection yi di ñëw yàlla may ñu ndam bu baax a baax a baax a baax moo dit bi nga ñëwee fekk nga fi samay xarit am na ñu bëri soo ba tey ñu ngi ñëw soo ba tey sama xarit yëpp fi ñëw bu ma limee damay jiw mais parfait njaay ñu nii mag euh, madame Ndiaye soxnaay Cheikh Bamba Ndiaye sama xarit mi ngi nii Cheikh Bamba Ndiaye un de mes meilleurs amis mi ngi nii

di ñaan yàlla rek sàng malaan sutura waa Bambey yàlla yokk xéewal yokk affaire bi gën a yokk jàmm ci dëkk bi gën fee yokk euh, teranga ci barke Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul Bambey TV Mamadou Ndiaye aussi yow jàmbaa nga rafet la nekk ñu félicité la ndokkale la ndax am naa sama benn xarit bu nekk bitim réew waa Bambey la nee na boo gisee wératul léegi et bu xëyee Bambey TV lay xool xam li Bambey xëyee midi mu woo xool Bambey TV ngoon mu woo xool Bambey TV maanaam man sax moo ma ëpp information Bambey TV léegi te loolu it Bambey gépp a ngi leen si sant bu baax a baax ndax ay sacrifice la avec vos maigres moyens yaa nga déployé fu mu toll nii fu nekk ci àdduna bi fu nekk ci àdduna bi ci Sénégal yaa ngi koy dem pour uniquement Bambey di am information en temps loolu aussi dafa rafet ñu félicite la félicite sa équipe dama lay jéwee ne dafa nekk gis naa am nga ay matériels yu yéeme. loolu nekk de na y a merci beaucoup merci. alaykoum Sénégal salam alaykoum bambay mangi tudd Ndiaw porte parole de ambassadeur son excellence. ñu bëggoon rek que ci la personne de l'âge? la personne de l'âge. je wax ci dina xaw parce que daa nekk nit koo xamante ni wax ci moom waaye nag am na lu mu ci war a mën a mosal nit ñi rek pour ñu xam kan mooy alaaji alaaji moom mooy nit koo xamante ni nit ku social la nit ku baax la nit ku bëri yërmande la parce que nag wax dëgg yàlla lu muy def jafe na ci leader boo xamante ni mu ngi ci Sénégal wala mu ngi ci région wala mu ngi ci département bi di ko def tey jii ku ne xam na nii bu ko neexan Korité ak Bambey salaire bi fi ne mu nekk biir Almadies toog nekk jàmmam bañ a faale waa dëkk waaye def korite day ñëw tabaski day ñëw màggal day ñëw tamxarit day ñëw te tey ku nekk biir Bambey tey ak koñ boo mën a yeewu ak kër goo dëkk xam nga ni jëfe alaaj de bu doon xale buy dox ma nga ca biir kër ga di fa wax it ma nga kër ga di fa wax ndax kër goo xamante ni tey dugg nga fa joxe na fa suukar koor te xool kii sama militant wala xool day xool ni daal moom mooy borom Bambey te ñu nekk Bambey ñëpp moo leen njaboote xoolul ñii fii lañ féete wala ñii leen féete yërmande ji nga xam ne tey jaarale ko ci moom loo xamante ni daa war a dimbali waa dëkk bi loolu xoolu ci ma sàmba xoolu ma ci ma dem mi ngi koy def fépp ba weeru koor teroo ba ni mu bi weekend bu jot mi ngi ci dëkk bi teraanga ji am mu koy boolee bokk ak waa dëkk bi bi tamit bi nee suba la ko rek tamit bu ko neexal mu tëdd Dakar ba ni weeri feeña wala fajar ñi ngi waaj julli mu ñëw defu ko moo njëkk nit ñi ci dëkk bi kër gu ci nekk la nga yelloo moom la nga xamante ni wërsëg la boo xam ne yàlla jaarale na ko ci yow mu génn ko ci li mu yor jox la ko pour nga mën a préparer sa sa Korité fii ci Bambey daal moom amul genn kër goo xamante ni nekk na fi ci difficulté maanaam événement di ñëw nga am problème boobu bu nu may def ba amee ginaar ak nu may def ba am xar nu may def ba am leen amu fi bi ko fi yàlla indee ba léegi daal loolu ci lay nekk te mosu cee ñu nit am na loo xamante nit nag lu mu xam-xam boppam mën da wax boppam lépp mais ñun ñi mu koy defal di ko defal suñu yaay defal ko suñu maam yi defal ko suñu tante a taxaw kontaan nañ ci ni muy jàppalee jeunesse bi ni muy muy jàppalee maire ni muy jàppalee suñu papa kontaan nañ ci moom malade yi wax dëgg yàlla loxoom juguti fépp foo xamante ni daal soo sollicité nañ ko fa wala ñu koo sollicité sax moom mu taxawal boppam ni président kon ñu ngi koy sant di ko gërëm ñun dañoo am nit koo xamante ni dëkk yëpp dañ koy xëccoo suñu borom may na ko te tey jii boo demoon Diourbel ñoo ko gën a xam ñun waa Bambey nga dem Mbàkke ñoo ko gën a xam waa Touba dañ koy xëccoo ñun kon bu ñu ko yàlla mayee dañ koy téye sàmm ko aar ko di ko ñaaral parce que te lu mas a xew lu xew ci réew mi boo xoolee RTS wala nga xam TFM di mu ko fa gis bu fekkan day dem téeb loxoom wala téye wërsëgam wala téye li ko yàlla boole nit ñi boo leen dimbali duñ la faale te bu ko neexan nag wax dëgg yàlla moom yor teraangaam yor ay dooleem téye ko mais defu ko fépp foo xamante ni sollicité nañ ko ci loo xamante jëm ci mbirum sëñ Tuubaa la kenn ko ci woo ñaari fépp foo xamante ni sollicité nañ ko ci loo xamante ni mbirum parti bi la Macky Sall kenn ko woo ñaari yoon dina ci def dooleem def ca xelam def ca xalaatam def ca yéene ba mu jeex tàkk mu ñëw merci jërëjëf. maa fay mbaa ji moom. c'est bon quoi. waaw euh, Maodo El Hadj wax ci moom yaakaar naa li Ndiaw wax tout à l'heure rek moom laay wax yomb na yombul ndaxte nit la boo xam ne il est très social euh, boo xoolee Bambey tey surtout boo xoolee ci côté étudiant yi man surtout loolu day wax ni dañuy toog Dakar mu ne bala maa gën a am jàmm mooy que ni suñu rakk yi nekk Bambey di def terminal bu ñu amee bac ñu am centre de formation école de formation bu ma leen mën a dugal. wala bu ñu leen orienté ci université Dakar mu mën a am appartement yu ma leen mën a utal ba nga xamante ne nii kenn du ci sonn parce que Dakar dafa metti loolu lay wax tout le temps Dakar ku fi nekk te amoo ku la dimbali da ngay daal di sonn nit la nag boo xamante ne nii sànq tout à yaa ngi koy wax que ni ci laylatul xadr bi moom moo nekkoon ordre du boo demee Touba boo ñëwee Bambey parce que taalibe Serigne Touba la hélas liggéeyal Serigne Touba kenn mënu ko ci bëgg na Serigne Touba gëm na Serigne Touba yaakaar na Serigne Touba. bañ boo xool digganteem ak sëñ sëñ sëñ sëñ dan Mouhamadan Mbacke booy xool digganteem ak sëñ Abdou Khadir euh, porte parole xalif général des Mourides booy xool digganteem ak xalif général des Mourides sëriñ sëriñ Mountakha Mbacke booy xool digganteem ak sëñ Abdou Karim Mbacke kon kooku mën nañu wax ne taaliba Serigne Touba la ba nga xamante ne ni fépp fu ñuy woote liggéeyal Serigne Touba fépp fu ñuy woote maanaam tagg yonent bi def ciy sawar parce que gëm na li mu doon xam na li mu doon te liggéeyal Serigne Touba rek ko ko ñor. Bambey nag dafa nekk loo xamante ne nii ñun dañoo war a sant bi ñu yàlla boolee ak nit koo xamante ni nii ku mel ne Alaaji Dia ci yërmandeem ci bëgg jàppale doomu aadama ci yërëm jigéen parce que boo xoolee jigéen ñi nekk fii nii Bambey yàgg nañoo jooytu pour war a mën a liggéey ci biir université bi tey buñu démé ba ci suñu rakk yu jigéen yi suñu yeneen mag yu jigéen yi suñu jën yi sunu jabaru nijaay yi di liggéey biir université c'est grâce à El Hadj Dia te yàgg nañ fi am université bu Bambey mënuñu cee bénéficier wu kon bu ñu demee ba am nit ku mel noonu ba nga xamante ni yàlla dimbali na ko mu relationnel di dox lu mel noonu ci biir Bambey c'est à applaudir vraiment